tey jii li ñu fi li fi indi tey moo di réunion concentration presse pour évaluer le nouveau wax système d'information bu BESP. bi euh, loolu mooy di système d'information bi nga xam euh, carte biométrique ci la bokk pour suñu papa yi ak suñu yaay yi nga xamni ñom ñoo retraité parce que légui kenn dootul rangati euh, pour toucher sa pension légui dañ lay jox ben carte bi nga xamni euh, sa photo mo ci nek ak information yi nga xamni mom mo war ci yow yépp

sen aduna yeb dañ ko def demo pour rewmi mi donc loolu euh, ak carte biométrique bi di am loolu dina dañ léegi ci benen wàll bi itam léegi pour dem immatriculer sa société ci IPRES soxlaatoo nga fay dem en ligne rek ci ordinateur ngay tok joxe information yi nga nar a joxe ñu joxal la sa attestation délivré la ko donc dina yombal lu bari bari nit itam boy liggéey nga bëgg xam fo tollu ci affaire retraite bi yooyu yëpp li euh, nga xamni mom lu ñu tek dina la mëna fexé

té ba tay sax li ñi def ni fexé na ba sax ñu gis ci lu bari ci lu démé non ñi nga xamni naru ñu am ci ay pension mais ñu ngi koy am xam nga lolu itam euh, xam nu ñu ko mëna a xam ngeen ko du man maa koy wax wa donc itam da nañ gis itam ci benen institution bi itam nit itam xam nga nit ben <laughs> at bi ben yoon da nga ci mëna accusé nañ gis ay nit ñu accusé ñaar yoon ci at bi xam nga yépp fraude la donc lolu ñu woowee évasion sociale li dina tax lolu dootul mun nekkati donc lo économie yi ñu am rek dina tax buñ ci mëna def pour li dañoo terminé pour lii lañ ci bëgg am ñu am ko ci wax loolu léegi jar na ko.